Seex Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Seex fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi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 te bul faale ko wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne yaa wat ña daawoote ña daawaate ngay woo nee nañu waaw waaw nda Cheikh Bamba yaay donoom ku koy sikki sa kaareere Cheikh Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woo ahaadani albaaqi min alshaytaani inda mamarriya wa fil awtaani wa fil awtaani muttaqi min ñu ngi taxaw ak sëñ Cheikh Diong jiite accueil euh, abaissement kon sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax xam naa nga bëgg a ñoo wax rek tolluwaay accueil abaissement fi ñu toll nii euh, ci xayma ci tënk fu ngeen ci toll nii ak seen lëkkaloo ak euh, restauration. nu ngi seer bu baax a baax di leen jégalu di wa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ngi delloo sant yàlla bu baax a baax moom mi ni fekk la woon màggalu daaw te suñu borom subhanahu wa taala boo leen ci ñi ñu ko fekk ren bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci activités yi di ñaan suñu borom mu bañ a doon suñu mujj bi daje. Euh, fii nag mooy makkanu ak ay hébergement daje fi nag ak mbooloo mu baree bëri mu tokk daje fi ndax ci ab lim rek 160 personnes moom moo fi nekk bàyyi ko nag ci ay gox yu fasantikoo ci mbool mépp mboolem rek foo xamante ni ab section ak yi bàyyil xadim am na fa am na ca membre boo xamante ni jógee na fa. ñëw daje fii fi nga xamante ni mooy Makoun ak hébergement waaye nag li jiitu ci loolu moom fii ñu nga xamante ni fi lañ koy defee fi lañ koy defee bokk na ci fi lañ koy defee nga xamante ni mooy bâche bi moom fexe nañ ba membre yi nga xamante ni moom moo ëpp ci li nga xamante ni moom mooy membre ñiy liggéey daanaka fii lañ ko tànne fii lañ ko jëlee ñi leen gën a tamit nekk waa Taïf ñoo ñu ci des beneen daa leen tiw nag kenn beneen section benn bu ci nekk gis na ci bopp ndax donte ñaari membre la wala ñetti sax jëlee nañ ko fi mu ñëw fii moom mooy mbooloo mi ngay gis ni ñu àndandoo di liggéey nii. waaw jërëjëf sëñ Cheikh mu mel ni kon dikk ak ñun ci eh, tànneef eh, sous commission bi nga xam mooy accueil hébergement ci maam ni nga ko tànne ci yenn section yi ba ci yenn regroupement yi ngir ñu teew fi ànd liggéey bi waaye bu ñu mënee xam xayma rek li fi waa restaurant li ngeen jot ci wàllu xéewal ñu xam ko. waa kon xam naa damay tàmbali ci démb rek ndax dafa mel que ni magal gi démb la tàmbali démb togg nañu ñoom eh, fukki mbana alil ñu ko reer bi tamit togg nañu fukki mbana ak ñaar andil ñu ko fii ñu toll nag tey ci bisu màggal gi togg nañu ci añ lu toll ni ñaar fukki mbana andil ñu ko foofu lañ tollagul ci xayma moom ngeen ñu fekk nii ñu di ko séddale nii ci instant bi ci loolu daal ci lañ tollagul ci wàllum xéwal comme reer bi ñëwagul nag mënuñu noo xam ne daal waaye bu sooyee ñëwee tamit bu soobee ci moom dinañ mën a wax programme bi tamit ni mu dem ni allah waaw kon baax na sëñ Sia jërëjëf ci xam-xam ci tolluwaayu liggéey bi nga xam mooy restauration rek ci li ko waxee ci li tàmbalee démb ci wàllu ñam yi ba ci tey ji ci suur màggal gi waaye ci tànneef yenn membre yi nga xam ne ñooy liggéey bi su commission boobu di accueil tànneef tamit jiitu ci section tubaab bi nga xam ñooy dalal mbooloo mi comme ni ko ñëpp defe rek kon ñu ngi leen jaajëfal baax xam naa incha allah dañ fi dellusiwaat ci ngoon ci yeneen tolluwaay incha allah ak yenn commission yi jëwriñ ñi ko seq rek xëy naa bu ngeen ko mënal li ñu xam waaw mën naa nekk sax ndax maanaam bi ñu dojalee euh, ak hébergement bi yëpp dafa nekk ay banqas yu xaw a bari ndax lu ci mel ni wàllum ziar yi dafa leen ko dara jaale am na ku fa nekk su fekkee na ajowu tur yi la mën a wax tur yi mais lenn lu ci nekk daal dañ ko décentraliser mu nekk ab sous sous boo xam te ni ñoom ñoo yor wàllu woowu noonu di ci liggéey moo demee kan ziar yi même bi nga xamante ni moom mooy euh, ak ay yi nga xam ne ñoo kilifa yi fii am na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor base bi nii am na si ñi nga xamante ñoom ñoo yor séddale bi fii am na si ñi nga xam ne ñoo yor activité bi di dem ak ñëw am na si ñu séddale ko dañ ko séddale kenn ku ci nekk daal di nga ci gis sa bopp baax na sëñ si yaa jërëjëf ci leeral yooyu rek ci tolluwaay ak ay hébergement comme ni ku mu jee wax ci ay sous commission ngir jàpp na liggéey bi gën a euh, kii kon jaajëf kon loolu la leen jëlee woon ci sous commission bi di ak ay hébergement ci kanam incha allah ñu ci yeneen sous commission incha allah asalaamaaleykum wa indama marriya wa fil awtaani ibadati btadaatu bismillahi وهو كفاني ذوي الملاهيم وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحمن والشكور ذكر رحيم بالنبي رجيم وآله وصحبه النجوم بالله بارة نصارى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 ndax mën nañoo xam lan nga représenté fii nii ci waañu waaw gannaaw bu santee yàlla julli ci bi di sant Serigne Touba ñu ñoo ngi tudd Ibra Kane bokk ci daayira wilaya bokk ci njiite organisation préfédérale bi bi sëñ Ousmane Mbacké jiite Serigne Mbacké ju topp ci ñu ci moom doon coordonnateur ci liggéey bi soxna si jërëjëf kon sëñ bi naka nga jàngatee liggéey bi nga xamante ne commission organisation am na ko ci ci ci màggal gi. waa xanaa sant yàlla bu baax di sant Serigne tubaa di ñaanal Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma suñu borom yokk ay leeram waaye sant Serigne Mbacke soxna loo mi ñu tuddee wilaya nga xam ne gannaaw yàlla bu ñu xamee li man ko ba di ko def defi lu mucc ay gannaaw yàlla mooma lii nag ñu am ci fierté lool ndax lu toll na bis bi Serigne ñu ne yaa koy organisé loolu kum dellu sa xel dara dut de sa xel te bi kenn nattuloo ne bis bi Serigne Touba ndax mooy bis bi Serigne Touba jógee njaareem fanaan ci dëkkam bi mu gën a bëgg ci àdduna sëñ mu Moussa andi woon ko fi yàlla nañ ko yàlla fayal kon loolu ku yàlla dogal nga doon ca dara soxna si loolu fierté la ci ñun loolu. nañoo xam euh, taarix bi nga xamante ne commission organisation am na ko ci màggal bu ñu gisee bernde yi ni mu fi kiiwee nii macha allah ban taarix la am ci commission la am ci màggal waaw taarix bi mooy wilaya moom benn bis la am benn bis mooy màggalu Daaru Xudoos sëñ Mbàkke Soxna la def noon comme wilaya comme wilaya am gud benn bis na jagleel nañ leen màggalu Daaru Xudoos nga xam ne manifestation la boo xam ne moom wilaya ko moom euh, fierté bi ñu ci am nag mooy euh, wax naa la ko léegi xam nga comme bis su ñàkk waaye nag lan mooy bis ba ak ban importance la bis ba kenn duutu nattal lan mooy màggalu Daaru Xuddoos bis la boo xam ne mooy bis bi gënaloon Serigne Touba ci ay gis bisam kun ko jagle noo man def sant yàlla te nag Serigne Touba moo ne woon yow yàlla maa ngi lay ñaan bis bi gën samay mooy bis may dajeeg yow bis bii nag la dajeeg boromam subhaanahu wa taala ñu jël bis bi nag ne wilaa yaa koy organiser loolu dal na sëkk xel waaye mu doon it loo xam ne ndax teraanga jooju ak bernde yi nga wax ko wax wilaaya wax na berne ku ne daaru xudan na berne lool na suñ mbokk son ko jàngaloon ndax fii ni suñuy woote koo woo mu ne wilaaya bu wootee rek berne yaa nga fa ndax loolu lañu yàlla dimbale ci Euh, bëgguk Serigne Mohamed Mbacke yàlla na ko yàlla fayal waaye daal mu xamal ne wilaya moom ku ko xam ci berne ko xamee fii itam ñin ko seqal mooy sous commission yi nga xam ne ñooy organisation fi hébergement bi Serigne Mbacke Niass moo fi nekk euh, waaye commission base bi ku ñuy wax Basirou Mar dëkk Diourbel moo ko yore bu dee sécurité Serigne euh, Abdou Fatah Fall moo yor jiite ak intendant restauration Serigne Thierno Sarr ñoo ko jiite mu ñeent su commission yi nga xam ne moo seq organisation Euh, Serigne Mbacke Diouf di coordonnateur bi ñun ñu coordonnateur adjoint di ànd ak moom ci liggéey bi ñuy seere liggéey bi soxna si. kon lan ngay dénk téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan. waa di sant yàlla bu baax nag di sant Serigne Touba di wax ne maa ngi soññ mboolem koo xam ne yaa ngi may dégg te bokk ci wilaaya mu doon liggéey boo xam ne ndax it kan ko joxoon du jaayil Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma mi sosoon daayira daa waxoon bu ma gisoon yoon wi gën a gàtt wu eggale ci yàlla ma andil leen ko daayira mii nag. laa leen indil Serigne Mouhamed Mbacke nag andi wilaaya tey payu àdduna ak gu àllaaxira mi ngi ci biir kon maa ngi soññ sama bopp di soññ mboolem koo xam ne ab wilaaya nga te ne ci Sénégal wala bitim réew ndax Gambie ci wilaaya lañ bokk te nekkuñ senegal kon maa ngi soññ mboolem wilaaya diaspora ak fu waay mën a nekk ñu xam ne liggéey bi yàlla la te am yàlla ci lii nag ndax benn dayra ci àdduna laa dégg borom wax ne ku ci nekk def ko ni mu ko santaane boo faata man rek loxol ko fex amul wilaaya dong la ko fi sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma wax nag nañ ci góorgóorlu baax Serigne Mamadou Mbacké moo taxawoon ne ñii li ñu ne maa leen ko kenn natt mosu ko natt mu ne li ñii li nekk maa leen ko sant maa leen ko defloo kon nag village yi maa ngi leen soñ di sant nag ci taxawaay vraiment gone yi da gis xam ne xal ay xal yu am passé yu ci liggéey bi di sant waa communication surtout village TV seenu taxawaay yàlla na yàlla dimbale ba mu doon ay tele yéen it yàlla dimbale leen ngeen doon fa loolu na ci biir télé ba ak rajo ba jërë ngeen def. waaw fii maay responsable bi jiite hébergement bi mooy gan ñi ak di leen bernde ci màggal gi. xanaa sant ci rek ngir jaxasoo gi section yëpp ñëw Taïf ñëw Diourbel ñëw Touba ñëw Louga ñëw dakaar ñëw euh, Kaolack ñëw ñëpp ñëw léegi ñu daje fii ngir bernde gani Sëñ Tuubaa rek ci bis bi. ñu ngi togg xéwal yi depuis dem ba léegi nag wala sax semaine bi yëpp ñu ngi ci baas bi ñuy baas di baas waa hébergement waa restauration di togg di leen jox ñuy séddale mbooloo mi di bëgg ba ci màggal gi nga xam ne démb ak tey lañ dugg ci màggal gi it noonu la demee rek dem ci ma ci waañ wi ñoom ñu togg indil ñu ñu séddale fexe ba gan ñëpp añ ci ay dal yu wute nag ndax am nañ euh, équipe boo xam ne moo ne ci biir baas bi di saytu baas bi tey ci suba la ñuy tàmbali ba suba ci suba ñu doog a jeexal am équipe boo xam ne kër Sëñ Tuubaa lay nekk di saytu kuréel yi ñoom it tey lañ tàmbali suba la ñuy jeexal am équipe boo xam ni jumaa ja la nekk di saytu jànkati alxuraan ya tey lañ tàmbali suba lañu jeexal ñoom am équipe boo xam ni panel bi lay saytu ci kër Sëñ Tuubaa gi ci jumaa ji ñoom ngoon 5 heures la ñuy tàmbali euh, ba 22 heures 23 heures ci la ñuy jeexal foofu daal mooy tolluwaay bi fi mu ne am solo lool lool mooy am tànn nit ñu am qualité ci section yëpp ñu indi leen ñu indi leen ñu àndandoo topp ci sama ginnaaw man ma jiite Mbacke Diop bu topp ci ñu ànd di liggéey liggéey bi wax dëgg xale yi neex a digal neex a tere loo wax ñu jublu ci def ko ni ni mu rek waaw ñu ngi sant bu baax xanaa ñu xam ni wilaya daal euh, groupement la boo xam ni maanaam boo tollee fële di ko seen mën na laa jaaxal waaye boo yegsee ba jaxasoog ñoom di nga xam ne ay nit ñu gëm seen Tuubaa te nangu koo liggéeyal lañ kon ñuy wax ni na ñëpp bàyyi xel wilaaya te góorgóorlu ci surtout rawatina nag ñi ci bokk ba pare nañ góorgóorlu ci taxawaay ba ku leen gis ku leen seen yàkkamte egg si ku jaxasoo ak ñoom doo leen bëggatee bàyyi yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci bàyyi xel ci topp gi nga xamante ne topp ngeen ñu ko ba ñu mën a éggalee suñu interview bi nga xamante ne ñu ngi koy def kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di leen ñaan ngeen bàyyi xel suñu chaîne bi di Wilaya TV